alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin summa salaatu wassalaamu ala sayyidi alawalina wal axirin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabiahum bi imaanin wa ixsaanin ila yawmi ddin wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokk yi topp seen site MTV Sénégal seen mbokkam daara Alioune Cissé moo leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy wëlif bépp nuyoo te benn nuyoo mënut a doy wëlif ko mu làmboo jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem ñu koy ñaan moom borom bi yàlla na koy sëmbatal ci suñu kaw ilaa yamil xiyaama di dellusiwaat ak yéen seen jotaay bi ngeen miin ci seen site bi di MOTV Sénégal waaye taw tey nag ñu bëgg a ñëw ak yéen ci weeru màgg wi nga xam ne ñu ngi ci mooy weeru muharram di weeru njëkk ci atu jullit ñi ginnaaw ba nga xamee ne Seydina Umar ibn Xataab dajeel dajeel na saxaaba yi ba gis ne war nañu jàpp weer woo xam ne mooy weeru jullit ñi ci commencement mooy weeru muharram xam ne weeru ah, fukk ak ñaar lay doon bu ñëwee nag tombeek suñu réew ci niñ koy compter mooy tolloog weeru tamxarit mu nekk weer woo xam ne weer wu làmbool na ay ngëneel la weer woo xam ne yu bari xew na ci ci taarixu islaam mooy weeru tamxarit nga xam ne sax amaana ñun ñu gën a bëri sàgg bëri ci jullit ñi sàggane na ni weer yi xamuñ ko bu dee ci olof nga dégg mun na tamxarit diggi gàmmu rakki gàmmu rakkaati gàmmu maamu koor ndey koor koor kori baraxlu diggi tabaski boo ko compté mu jox la fukk ak ñaar bu dee ci arab nga dégg mu la muharram safar rabiul awal rabiul thani jumaadul ula jumaadul thani rajab soban ramadan zulqaada zulxijj mu jox la fukki weer ak ñaar waaye weer yi nag mooy weer wi njëkk ci weer jullit ñi waaye ñun nag ñàkk a toppatoo suñu weer tey tax na bu weer amee fukk fan wala juróom-ñeenti fan ci leen ñuy jàpp na ci la at mi commencé fekk weer booba dem na ba am fukki fan wala juróom-ñeenti fan. li ko waral nag ci fukkeelu fan ba wala juróom fan ba dafa am xew-xew yu bari yoo xam ne da cee dajee ci islam bokk na ci yonent yàlla nuux ginnaaw ba nga xamee ne yàlla defar loon kon ak gaal ba alak ba gaal ga tegoon ca géej ga di daw diir bu yàgg bis bi nga xam ne ci la gaal gi taxaw ci wastawat alal juudi wax nee na mi ngi tombe woon ci bisu fukkeelu fan ci weeru tamxarit mooy weer yi ñu nekk waaye naka noonu bokk na ci ci nettali ne yonent yàlla yunus ginnaaw ba nga xamee na waar na aw nitam waar leen ba sonn ñu moom ci la gàddaay te amul ndigal bi nga xamee ne dugg na ci géej ga ba fa la xew xew ko ba jën wi wan na ko bis bi nga xam ne ci la ko jën wa géqi maanaam ci la ko jën wi yàbbi mu ngi tombe woon ak bisu tamxarit ci borom bi wax ne fa lawla annahu kaana min al musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun bu nekkutoon koo xam ne daana sàbbal borom fu mu toll kon ci biiru jën goo ci lay sax ba yawmal xiyaama waaye nekk noonu tamit yonent yàlla Isaa miñ xam nga xam ne ñu réer ñi jàpp na ne ñoom doomu yàlla la gën mel ca bañ ko jàppee na dañ koy pendre dañ koy daaj bis bi nga xam ne ci leen jàppoon ne ci leen ñëw pour jàpp ko daaj ko bis boobu mi ngi tombé woon nag fukki fan ci weeru tamxarit biñ ñëwee nag jàpp na daaj ne ko yàlla ne kenn daaju ko kenn reyu ko wa maa qataluhu wa maa salabuhu walakin subbiha lahum yàlla mu ne Isa kenn reyu ko yàlla kenn daaju ko yàlla mu ne man yàlla maa ko yëkkati man ba rafaahu kon bis boo tamit mi ngi tombeek bisu tamxarit noonu nga koy toppee islaam am ci ay ndam yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri bokk na yi ci gën a fes nag mooy yonent yàlla Muusa alayhi salaam wala njëkk loolu sax ci maam Aadama alayhi salaam bi nga xamee ne yàlla aay na ko lekk garab ba ca aljanna bi nga xamee ne wàcc na ci suuf nag jaaxle lool bis bi ko yàlla nangul tuub mi ngi tombeeg bisu tamxarit fa talaqa aadamu min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim mi ngi tombeeg bisu tamxarit kon ñu gis na islam yàgg na cee am ay bis ay ah, xew-xew yu màgg bi ci gën a fes nag mooy bokk na ci yent yàlla Moussa miñ xam moom mi nga xam ne moo tase woon ak bandi bu rëy ba di Firawna sonal ko lool waaye bis bi nga xam ne ci la ko yàlla alagal na bis boobu tamit mi ngi tombeek fukki fan ci weeru tamxarit kon bis la boo xam ne daal islaam yàgg na ci am ndam ba tax na yent yàlla muhammad bi nga xamee ne ñëw na madina ñëw na fekk yahudi di ko woor mu laaj leen waaw lan moo tax ne woor fukki fan yi ñu ne ko yonent yàlla Muusa li may wax ibnu abbas moo ko nettali mu ne bis bu mel nii ci la yàlla alagalal ñu na moo tax ñi ci sant yàlla di ko woor moo tax nag yent yàlla Muhammad na leen man maa leen gën a yey ci Moussa maa leen gën a yey ci Moussa ci la ko yonent yàlla Muhammad commencé woor waaye nag yahudi ay baadoole leen ñoom boo leen fekk see ci dara da ngay dégg ñu ne ah moom mi ngi weddi suñu diine ji pare te lu ñu def mu def ko ci la yent yàlla Muhammad wax ne nag bu ma yàlla mayee ma dund ba déwén dinaa woor juróom bi waa yàlla dogal na déwén nga fekk ko fi kon bee sunna la boo xam ne jëf na ko te di ko digle waaye bee tamit sunna boo xam ne wax na ko kon ñaar yëpp sunna la kon ku ko man nga woor ñaari fan yooyu bokk na li nga xam ne mooy sunna ci bis bi mooy woor juróom bi ak fukkeel bi soo ko bu dee benn bi raw na la bu la neexee nga woor fukki bi ak fukk ak benn bi ngir wuutee ko yahuud yi ndax ñoom ay baadoole lan kon loolu moo ciy sunna abi xataada nettali na laaj na yent yàlla muhammad ci bisu asura mu ne yàlla da ciy jéggale bakkaari at mi weesu kon tamit kon gis nga ne kon koor gi daal mooy li nga xam ne mooy li ci ëpp solo mooy sunna bi ci bi ci wér yeneen yi deseem nag amaana ay xoraafaat nag ay aada ay yu mel bu ñëwee ci suñu réew mi nag bëri na yoo xam ne moom ñu ngi ko ciy def comme li ñuy wax comme taajaboon gi ñuy wax masalan nga xam ne baat la boo xam ne ñu ngi ko daggee ci alquran ci taaliba yi nga daan def daan yalwaan ja daan tari sóoratu nañ mi ak yañ ci daan boole ba ci afa min hada al xadisi taajabuun baat boobu la nit ñi dagg tey di ko wax taajaboon nga xam ne tey taaliba yi ko sosoon ndax booba dund yombutoon te bis la boo xam ne kër yëpp dañ daan togg toggi ko doy taaliba yi daan ci yalwaan daan ci am cere yu bëree bëree bëree bëri nga xam ne dañ ci daan am dund lu mat ay weer ndax dund gi ni daan yaatoo suba te booba dund yombutoon léegi nag tey musiciens yeeg taxawaalkat yi daanaka ñoom nangu nañ ko ci taalibe tey ba dugal ci ay folklore rek yu ci bokkut léegi nag moom tam xarit moom nag waxuma la lool sax waaye am na yu ci xew tamit yoo xam ne dafa xaraam moom mooy góor guy sol yërey jigéen walla jigéen guy sol yërey góor loolu moom dafa xaram ak yeneen yi nga xam ne yaa ngi dégg mu ci xew tey musiciens yeeg taxawaalukat yeeg ñëpp tey jël nañ ko bu jotee ngir ay teleeg ay tëggkat ak def ko lu kenn xamut nga xam ne baat bi sax mag ñi dañ doon wax ne tam xarit bu ñu daan wax mooy lan comme jamono da daan tolloog buy tam xarit di jot dugub ji di ñor dugub ji bu ñoree bees a booba bu ngoonee comme niñ ko daan defee rey seenam nag wala luñ mën a rey ñoo xam léegi nag cere jiñ togg ak dugub ju bees ak yëpp yu bees nga bàyyi ba minuit nga lekk ko ak diw ga ca nekk nga tëdd lekk ko wi tëdd bu la yàlla dimbalul boo yow yamal xiyaam ngay fanaani léegi nag bëriwaa na nag ku sa xarit invité woon nga dem rey rey fa te sa biir baaxut nga boole yi bees yooyu lekk ko yàpp wata boor ñëpp xam ne ne lekk ko gënul yàpp ñu rey léegi togg ko léegi nga lekk ko sa biir baaxut ak cere ju bees yooyu boo ko masaan lekk amaana boo xëyee sa biir mën naa am jafe-jafe bu dee nekkoo ko bu biiram baax léegi nag lay wax looy daal di wax ah man de kër diw laa doy rey démb wala kër diw laa añee démb nga dégg ñu mag ñi nañ leen moo tax loolu moo tax ñaan tam sab xarit waaye tamit mag ñi daanañ ci wax ne comme exemple boo xoolee li tax ñu waxoon ne nit ki boo ko yoree dafa war a fekk jant di fe jant bi jant bi nekk fii ndax mag ñi xamoon ne na nit ki lekk yàpp bu bees ak cere ju bees teel te guddee tëdd kooku loolu baaxul ci wér yaram léegi mag ñi daan nupp xale yi ne leen boo koy lekk jant daa war a daa war jant bi nekk fii ndax boo ko lekkee timis lu mu gàtt gàtt da nga dox ab diir balaa ngaa nelaw day fekk cere ja rees na yooyu yëpp mag ñi daan nañ ko ci làq waaye daal li ci ci wér tey na rek mooy koor gi ku ko man na ko def ah, yeneen yi desee nag ay xuraafaat ak ay biddaa bëri na ci lool yii nag moom bi moo ci gën a fesat léegi nee naa la ñoo ko daan yalwaane daan ci wax wax ak yaay yeeg yaay boobu bu dee defee ci taaji moom léegi nag changé nañ ko ay wax taaji naar ak ay maa xuloog cereeg yu nekk tey ñu ngi koy wax te yooyu kenn xamul cosaanam mooy lan kon daal li nga xam ne wér na ci te kiy dund sunna def ko mooy koor gi soo mënee waral juróom-ñeent ak fukkeel ba bu dee yàlla dogal na ba juróom-ñeenteel bi raw la bu la neexee woor fukk ak fukk ak benn ngir wuutee koog yahudi ndax yent yàlla Muhammad dafa bëgg ñiy wuuteeg yahudi ndax yahudi dañoo xaw a doy waar waaw xaw a doy ndax ñoom noonu lañ koy gisee Muhammad daal nangu suñ diine ji te luñ def mu def ko ñoom gis-gis wala ndax am ci moom moo tax yent yàlla bëgg ñiy wuuteeg ñoom kon loolu daal mooy li nga xam ne mooy sunna bi ci wér te sunna bi ci rot mooy koor gi yeneen dese nag yoo xam ne yu ñu ci dolli la ak ay xuraafaat ak ay bidaa ak yu ni mel sol yére jigéen yi moom surtout ñu bàyyi jattal loolu dafa xaraam góor du sol yére jigéen jigéen di sol yére góor góor du sol yére jigéen jigéen du sol yére góor te nee naa la bu njëkk taalibe ko daan def di ci yelwaan li ñu dundee léegi nag taalibe yi defatuñ ko léegi am folklore borom alal bu xëy dem maa ngi dem ci taaji ba ni ci kër borom alal def ko ay caaxaan ba nga xam ne kenn xamutu li kon loolu daal ñu bokk loolu la ñëwoon a ngir fàttalante ko ak suñu xam naa ko ñu ngi ñëw doyloo lool lu ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaha la in uridu illa al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu